ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat tv ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey nag dañuy wax ci mbiru nervi APR yi nga xamante ni leen teelul arrêté publié woon nañ ko suñu page facebook ci guerre civile lañu jëm sénégal nag boo waxee ñu ne guerre civile mënu fi am mais lu mën a nekk la li tax lu mën a nekk la mooy bu fekkee ni dafa am ñoo xamante ni nguur moo leen ngemb di leen fay di leen jox ay arme di leen xont loger leen te ay ñuy wër di agressé sénégalais yoo xamante ni ñoom violent wuñ yoruñ ngànnaay seen réew moo leen ñor te lépp ñu ngi koy def de manière pacifique sénégalais yooyu ñuy agressé bu ñu demee ba xam ne seen état mënatu leen aar ñoom itam dañuy jël seen matukaay balaa nervi yi di dal seen kaw ñu fayu te fii la Macky Sall ak nguuram bëgg yóbbu sénégalais yi moo tax chaque fois ñuy alerté bi ci mujj mooy kaw gi Marius Sagna ci ñaning dinañu revenir ci cas mu demee te la fa xew bu fekkoon ne ñoom Sagna dañu décidé woon fayu tey ay bakkan rot na ngay dégg mais heureusement que Guy Marius Sagna moom bokk na ci activiste yi gën a sedd ñun taam daf ñu sax dépassé ndax am na yu muy muñ en tout cas bu doon ñun la koy dund amaan na mun na jëli leen proportion. avant Guy Marius Sagna itam Kër Massar également ñenn ci population bi dañoo amaloon manifestation bi si weesu ngir ñaawlu condition seen dëkk seen maire envoyé leen ay nervi ñu leen di dóori kurpañ ci kanamu takk der yi beneen bi ci mujj nag moom ay menaces la. benn ancien mbandkat boo xamante ni ñun duñu sax jaar ci turam parce que tur lay wut instant bi ci wutum siiw gu métti la nekk mais jàpp leen ni fecckat la woon bi moroomam yi di jàng ci daara ak école yi mi ngi wër tànn bee rek xumbal yi topp waa pirate de jëppal xam nga waa pirate de jëppal ñoom ba ñuy tollu seen digg jamono jeunes yu bari dañu leen faawoon bëggoon mel ni ñoom parce que dañoo révolutionné pecc mi indi ay chorégraphie yu bees jeunes yu baree bari defoo leen ay fans moom si toppoon seen ginnaaw ba gaay sarax ko dugal ko seen benn clip muy mband mband yu métti yii rêve bi gënoon reuy moy nek mbandakat international di jamono dem ba yakku ak nguru Macky Sall parce que nguru Macky ñom dañu delloo téeméer at ci ginaaw mu dugg ci politique légui dem na bam audace nan da fay menacer Pape Jibril Fall parce que mum Pape Jibril limi wax arrangé wu len mais il n'a qu'à arrêter am na di ngagne president Macky Sall parce que président Macky Sall lum def mom deful xaj bi président Macky Sall mom la yalla fal muy dimbalé Sénégal mom qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal Pape Jibril Fall nek ci télévision rek ibbi ñam di wax di xas defo dara pour Sénégal. Ah, ñi ñu ñu la ya mëna wax rek ya mëna wax bu la tax wax lo xamut il est trop bavard na bëri na tëj gémmiñam gi parce que ma ngi koy waajal yoo xam dina tegg gémmiñam par force parce que ma ngi koy waajal yoo xam dina tegg gémmiñam par force parce que ma ngi koy waajal yoo xam dina tegg gémmiñam par force donc yaakaar naa ñiy wax dictature intellectuelle tay amna na ñu commenté benn journaliste bo xamanteni mom analyste la te la plupart lu mu wax teggi amna lu mu fa teg ëllëgu ñu deglu ko xol lay njariñ ci cadeau yi muy jëbal bu den di defal réew mi moo la ñor mais dañ koy menacer ne ko dedet waxal ni Macky Sall moo fi def li par force alors que RTS mi ngi nii télé bu ñak njariñ bi nga xamanteni ñun sénégalais ñoo leen di fay mais benn parti lañ fi nekkal muy APR bo leen wowe ci événement sax du ñew ñun sénégalais ñoo leen di fay momit pap jibril fall da dafa yoru bu mu upp mu Guy Marius Sagna ñoo yam mais bu doon keneen fay porter plainte ñu arrêté mbandkat bi nga xamanteni tekki wul dara té mom pap jibril Fall nak ñu jël ay kayam ndax ñom bu la jéemee wo mënuñ la am dañuy fexé yak la donte doomi adama nak lu mu def mu soti suñu borom da ci and mais na taxaw ci ay gardam ndax force occulte yi nekk ci nguur gi duñ ko may dara Sénégal nag bari na ñoo xamante nii au ñu wax ci lii nga xamante nii fa mu nar a jëm baaxul suñu réew dañuy nekk di attardé wu ci li xew ci réseaux sociaux yi maanaam ay faux compte yu saaga suba ngoon te xamuñ ñooy kan donte dañ koy ñaawlu créer faux compte utiliser turu jàmbur ak photo jàmbur di saaga nit ñi moom rafetul jekkul moo xam fu mënti bokk mais dafa lu ko gën a garaaw te waa nguur gi ñoo nekk di ko def mooy ay nit yoo xamante ni ràññee nañ leen xam nañ fi ñu dëkk ñu armé leen dëkkal leen di leen fay chaque mois pour ñuy wër ci dëkk bi di agressé activistes yeeg ñi nga xamante ni ñi ngi xeex ngir benn mbir léegi yamatuñ ci dañuy sax menacé moo tax ñu bëgg ci def benn taxaw seetlu leeral yi fi mu am ak fan la ñu nar a jëm bu fekkee ni nguur gi arrêté wul di def yëfu banditisme yii ñu bëgg a continuer réew mi ndax ñoom bu dëkk bi tàkkee dañuy daw ak seeni njaboot. ñu doore ko kaw gi Marius Sagna ci agression bi mu subir ca Nianing bokk ci communauté rurale bu Malicounda bu Mbour Maguette seen nekk tey directeur kudd di seen maire foofu lan moo fa xew ak lan moo fa yóbboon Guy Marius Sagna Malicounda dafa am benn association bu fa juddu ñu koy woy jug jot na te ndew ndawi dëkk ba taxawal ko ngir sàmm intérêt village yëpp moo xam ñaniñ mbaliñ warang soose warang séeréer susaan bambara ak li ko wër ñoom nag depuis lu yàgg ñi ngi xeex ngir seen suuf ñu bañ ko caxat-caxatee ndax le 26 octobre 2016 meeru Malicounda di Maguette seen nekk tey directeur u dafa indi woon benn tubaab di nationalité belge buñ naan Philippe Selfoud ne dafay amal ben projet résidentiel et hôtelier ci espace bu toll ci 18 hectares mo nek ni ngeen ni seen moom Maguette Sène bët ki démb génne na communiqué ne musul attribuer 18 hectares mais document ba nekk nii moo fi indi won tubaab bi convention bi signé won mo nek ni dal di defat benen attribution bo xamanteni nii daf ko jagleel benen société ci même zone bi nga xamanteni nii moom la joxon tubaab bi parce que ci diggante bi tubaab bi jot na fi dug kasso ken xamul lan moko dugal kasso tubaab bi jotoon na fi jima xaru ken xamul lu ko waral tubaab bi tamit profité nañ génnee ko réew mi te ba tey dellu si waatul mais boobaak léegi non seulement projet bi réalisé wuñ ko mais aussi waxuñ fan lañ nar a jëm ak 18 yooyu noonu lii moo nekk di xew actuellement ñaniñ ba pare ñu bëgg koo ndëpp ndëppal léegi nag comme que waa association bi depuis des ñoo ngi xeex mais kenn déggu leen ci lañ invité Guy Marius Sagna ñaniñ ngir toog waxtaan pour bi sénégalais yëpp mën cee jot foofu nag la directeuru COUD di Maguette Sène nekk meeru Malicounda ak ña ko fa teewal tàmbali def ay manigance pour rencontre boobu noonu bañ a am. réunion bi dama ci jotoon ay information parce que ñu bari tey depuis démb ñoo ñuy woo di ñu jox xibaar réunion bi jóg jot na de ko initiation buur lan moo taxoon ñu war defar réunion bi mooy ñu wax ci dix-huit yi. ñu ne nañu def réunion réunion boo xam ne dañ koy defoo école buur buñ ko waree defee école buur. directeur bi dañ menacé ndax jokkoog na mon téléphone bi ma ko dafa né réunion bi boko défé fofu dañ lay nu a dafa jor instruction ñu jëlé ko fofu ñu jëlat auto Il ñi pour ñu wara ñëw ñëw fi nga a changer oasis ki nga menacé Il ko bi gaay bi expliquer

léegi nag li ñuy laajte ndax kenn amatul droit def réunion ndax kenn amatul droit invité Guy Marius Sagna mu ñëw. ñoo ko déggandoo ñoom Guy Marius Sagna dañoo décidé woon dajaloo ci benn bërëb ak doomi ñenn ñi waxtaan ñu aaye leen bépp bërëb ñu ne kon nañu dem fa problème ba nekk mooy 18 hectares yi ñu bëgg séddoo taxaw ca mbedd ma wax li ñu war a wax nervi yi daal di leen di fekk foofu noonu agressé leen li ci xew lépp yaakaar naa yéen ko gisandoo ci ay vidéo te li yéeme ci histoire bi mooy quand wu ñoom Maguette Sène ñi ànd ak moom ben argument la ñuy layalee agression bi moy yoonu gi madou Sagna nekku ci waru fa woon dem. nit ko xamné aussi do préfet do gouverneur do sous préfet quand même bu problème até guñ problème bi ban problème la lan moko indi nga tal sa auto duggu ci bërepp jambour ah yoy tamé di ngeen ko wara xolal bërepp ci duggu ci bërepp jambour fan moy bërepp jambour est ce que moom il est de Mbour. bu nekk de Mbour amul droit de Mbour. non lan mom lan la signifier préfet la. ah préfet Guy c'est un citoyen sénégalais citoyen sénégalais mais s'il n'est pas de Mbour amul droit du préfet du gouverneur mais amul droit dugg Mbour mais du fu mu dem mairie la affaire problème suuf la donc yooyu tamit da ngeen koy un citoyen amul droit yu di ñoo yor Sénégal tey maanaam kon léegi réew mi ak nguuru Macky Sall Sénégal bi dafa am dëkk bu mu dëgg ak dëkk dafa am sens interdit wala buñ la falul amoo ndombal tànk waroo wax ci problème mu askan wi lii moo garaaw te fu mu nar a jëm ndox amu fa waxuma la sax sénégalais mais même ab étranger ab doxandeem bu jógee bitim réew dugg ci biir réew mi te jógul ngir yàq fu ko neex dugg fu ko neex génn waxuma la ab doomi réew boo xamante nii moom dafa tayli léppam ngir Sénégal giimaru Marius Sagna moo ci gën a yaru ci activiste yi doo ko dégg sax mu wax lu ñaaw jëmale ci ñi nga xamante nii ñoo nekk di yàq Sénégal actuellement même manifestation bu ko takk der yi di jàpp du nekk di bañ wala di jéem révolté wu kon ki méritowul wul liko Samba Boy def barki demb te ñom wa frap gi maru sañak ñi mo andal bu ñu décidé won fayu am ci gañu ba gi ñi ngi tak radio yi di wër fep naan force occulte yi leen doon wax ño nek ni ñi ñoo bëgg a réew mi mais xëy li gën lay def and nañu dal ba top leen ci terrain bi ñu leen bëggoon wo muy rayanté motax ñu waxol leen ni force occulte yi terroriste yi agresseur yi ñi ngi ci nguuru Macky Sall ñom rek ñoo organiser meeting di doronté ci sagaté seen biir ñom rek ñuy wër di agresser sénégalais yi fi le réew mi tollu ñu ñëw aussi Kër Massar fofu itam lan mo fa xew ñenn ci population bi ñoo dajaloo ci benn collectif tuddee ko mouvement sàmm suñu dëkk parce que légui li neex Sénégal moy askan wi xaaratuñ kenn di ñëw di saafara seeni jafé jafé ñom ñoy dajaloo ci benn kuréel bolé seeni nakar ngir xaccu xàccandoo dóorandoo loolu la waa Kër Massar def ngir xeex li leen métti seen de désorganisation ba fa ak yeneen i jafe-jafe ci mel ni insécurité décidé organiser un rassemblement samedi passé ngir fësal seen naqar bi ko ba Moustapha Mbeng bokk APR ci la def benn audio di woo booy topp ci ngir ñu attaqué ñi a organiser manifestation bi maanaam di leen violence. on a une jeunesse suñu jeunesse bi duñu ay tapette de mais soo ñu xoolee comme ay tapette parce que opposition bi ñooy wax opposition bi ñooy attaqué opposition ñooy génn di jéem a di jéem a marche di jéem a xeex ñun opposition bi sax buñ programmé marche ñun war nañ programmé marche même lieu ne leen dañ daje foofu ñu xool ba xam yéen li ngeen jaay ñu jënd ko préfet dégg loolu arrêté marche bi annulé ko parce que risque d'affrontement wala nangam yooyu yëpp c'est des stratégies mais bu ñu waxee ñu ne bàyyi leen leen ñun nañ liggéey adduna bi léegi da ngay liggéey boole ko ak wax waaye liggéey kese te doo wax nit wax ba suul li nga liggéey jële la fi loolu moo fi am waaw bëgguma woon nag def sax ay vocal parce que man damaa wax ba sonn waaye nag il faut ma def ko parce que des fois sa xol bi moo dul neex parce que formé wu ma leen noonu ci politique man te li may gis nii noppiwaay bii ak toog a seetaan bi des fois sax da nga naan ñi est-ce que ànd nañu ak man est-ce que ñii sax samay jeune lañ des fois tu te poses la question. xam nga lii incitation à la violence la maanaam di xirtal ay doomi aadama ci fitna ci koo xamante ni yow maire nga mais aussi député nga assemblée nationale Moustapha Mbeng maire la député la ca pencum ndawi réew ma xam naa ñu bari daañu comprendre léegi lan moo tax suñu assemblée mel ni mu mel jëmm yu mel ni ñoo fa nekk di fa def seen yëfi dof bi mu waxee lii kenn jëbalu ko convocation waaye tam teguñu koy daan nim ko waxé lako défé defee manifestation bi dafa organiser ndogu ci même bërëb bi manifestation bi war a ngir def liñu woy provocation ba noppi une nervi ngir ñu agresser manifestant yi mo ngeen di gis ni te li ci gëna ñaaw moy dañ doon agresser gaay yi ci kanamu tak der yi wedd gis bokku ci manam wa APR liñu nekké légui dañ koy def en complicité ak suñu way tak der yi nga xamante nii ñoo war a wattu suñu kaaraange son incompétence, il se permet d'envoyer des nervis chez moi pour insulter nos pères, nos grands presse qu'on a transféré le monde entier, on les prend en témoin. Mustapha Meng, c'est un incapable et un provocateur. C'est un provocateur qui n'a voulu que nous provoquer. Et en insultant nos parents, ku nekk sa papa ak sa yaay nga am ku saaga sa baay nga jóg wax ak moom dafa saaga suñu baye. Mis à part anarchie bi am fi Kër Massar yëpp on a un compte à rendre à Moustapha Mbengue te doomu Babacar Faye yi nga saga, tey lay mujj. kon kuy saga kat, ay agresseur ay terroriste seet ko ci nguuru Macky Sall les violence bi nak warul bett kenn ndax sen kilifa muy Macky Sall sa yu wax ak sénégalais yi dafay menacer di xupp ak parce que bu buñu jox pouvoir la pour mom lepp ci lañ koy régler ak réseaux sociaux yi alors que mom ci indiscipline la yoré parti muy APR manam yow réguler sa parti nan da ngay réguler mënul donc liñu wara xam moy ñom comprendre nañ ni mënuñ nañ ni dañu yor réew mi légui nak ci violence lañu bëgg mandat agressé fii saaga fële recruter une nervi de gauche à droite ku dem bay utiliser violence cela veut dire que yow sa xam-xam dafa jeex mënatoo te li ñuy def nii yëpp dara du leen ci fekk gis ngeen li fi xewoon ci manifestation yu weesu APR dafa recruter une nervi waa PS ñoom itam ñoom Aminata Mbengue Ndiaye recruter également une nervi jox leen ay armes héberger leen une maison du parti socialiste bi nekk nervi yooyu yëpp moo xam APR ak waa PS dajaloo di agressé sénégalais yi dem sax bay téere ci këru jàmbur yi ay balu fetal mais batay dara fekkul leen ci alors que ba moment bi ñuy def vidéo bi ñoom Ndongo job ak yeneen otage jurbel Diourbel bi ñoo na ba Ziguinchor ñu ngi leen teg loxo ba léegi parce que duñ doon manifester pacifiquement gàdduwuñu woon sa xeer bu gëna ndaw mais délinquants yi nga xamanteni ñom ñoom dañoo yoroon ay armes di agresser ñoo ngi doxi seen soxla kenn laalu leen mais yemuñ ci léegi dañuy sax menacer ñi nga xamanteni bokku ñok ñom gis-gis tey waxta yalla rek tax nek ci télévision rek ibbi ñam di wax di xas te defoo dara pour Sénégal ah ñu la ya mëna wax rek ya mëna wax bu tax wax il est trop bavard na gi parce que dina par force parce que dina par force la ñu en 2021 ay alliés politiques yo xamanteni dañ ko fecc ba rap moom waji bi mi dem Fall mi ngi ca ja école fak nopi def concours ceci gënë doon journaliste moment bobu nonu waa gi mband ba àndak ak waa Pirates de Jëppal fu ñu dem yóbbaale ko mu topp leen Macky falu delloo ñu ginnaaw ba mbandkat boobu nga xamante ni ba moromam yi di jàng mu ngi wër di taxawaalu ci xumbaleeg tànn béer yi kooku tey mooy jox leçon doomi aadama boo xamante nii mën nga bañ a d'accord ci ay idéem mais doo ko bañal pertinence am fii la Sénégal toll nguur gi fi nekk dañuy promouvoir médiocrité ba ñi nga xamante ni dañoo waroon noppi ñu jël kàddu naan dañuy wax démbuy xuppu doomi aadama yi moo tax ñu ne nag ku nekk jëlay matukaayam ndax comme ni ko kilifa waxee woon rek ñun suñu bakkan yi moo gën bakkanu Samba Boy yi nga xamante ni tekkuñ dara ku jóg nag pour faagaagal la yow am nga droit fayu la yamuk la mu namu ci yow Barthélémy Diaz en 2011 bu fekkul woon mu yor arme kon ba tey ñu ngi koy ñaanal ngir suñu borom yërëm ko ndax ay nervi la ñu yónni woon ngir ñu fekk ko meereem sàkkal ko pexe ndeke boobu moom mi ngi pistolet daal di tiire gaay daw mooy kaaw Ndiaga Diouf bi ngeen di dëkk ay agresseurs yu ñu yónni la ngir ñu sàkkal pexe Barthélémy Diaz bu Barthélemy Dias yoru woon arme ray nañ ko moo tax ñu gëm ni ñoom Guy Marius Sagna Abdou Karim Gueye ak ñeneen ñi nga xamante nii ñi ngi xeexal Sénégal ñoom dañoo war a autorisation ngir yor arme ndax nguuru délinquant la ñu am ak affaire te ñoom jëmm yooyu noonu dañ leen soxla ci xeex bi seen dund daf ñu amal njariñ ñi nga xamante ni nag seen dund amul benn njariñ mooy agresseurs yi ñuy yónni ak ñi leen yebal ñii ku la ci bëgg a ray boo ko rayee da ngaa rendre service Sénégal ndax seen dund gi dee mu ko gën torox mënul weesu say waajur jur la fi ñu la war a jure nga màgg war a tekki amoo looy def lu dul di wër di agressé sañu lay fay kon nag ku nekk jël say marukaay te comprendre fi ñu nar a jëm ak nguuru Macky Sall kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf